ok euh, sama gars yi quelques secondes rek ñu déglu Antoine Diome ni mu waxoon démb vite fait rek. dafa am ay doomu aadama moo xam ñoo ngi dëkk ci biir réew mi moo xam ña nga nekk ca bitim réew waaye dañuy jóg ngir di noonale doomu aadama yi dëkk senegal di soosalee ay xol waaye di wax ay wax yoo xamante ni ku leen dégg wala ku leen déglu di nga gaañ sa moroom wala di lor sa moroom. ok donc yow bu la déggee bu baax ne nga waa diaspora bi ñoom ñooy influencé ñi nekk Sénégal euh, pour ñuy taal dëkk bi c'est que si fii moo baaxul da nga desi muus c'est que da ngay jaawale être diplômé ak être intelligent c'est pas la même chose parce que boo intelligent woon di nga jéem a décortiquer message bi nga xamante ne jeunesse bi mi ngi koy jéem a lancer à travers les manifestations yaa ngi dégg te gis nga diaspora bi ñi fa ne ak ñi nekk Sénégal ñoom ñoo am ñoo yem même même état d'esprit kenn influencé aussi si kenn dafa fekk ñom ñaar ñëpp ñoo bokku lu ñu bëgg même jeunesse bi la même population bi la ñun ñëpp ay sénégalais lén ka nga nekk si diaspora bi ka nga biir Sénégal on veut du changement lool nga comprendrewul kenn influence aussi si kenn yow sa différence ak ñi nek ci diaspora bi xam nga la la da nga égoïste yow sa lépp baax na rek ça va so feebaree di nga mëna dem feju ji xam nga fi nga dëkk forcément su tawé du ta yaa ngi à ta fin, sa famille tout va bien Je vais calculer la population du Doudou population euh, comportement contrairement à ce que nous avons diaspora Sénégal plus de 2,5 milliards 500 le gars du Sénégal par an du l'économie économie Sénégal y'a ngi Euh, diaspora bi li en Europe euh, manam ku feebar faju xam nga cool amul ben problème loolu lañ bëggal Sénégal te xamnañ ni ne nek Sénégal ndax li Sénégal am ci ay ressources Europe amuñu ko par exemple France amuko yaangi dig te France ñi ngi sen jàmm Sénégal 15 millions 15 millions habitants rek lañ xam nga France ñaata lañ presque 60 millions d'habitants habitants te France xolal nit ñi dañuy liggéey ba chaque jour ñu lay ñu lay wo nal est ce que bëgguloo liggéey xam nga la moo parce que ñoom dañoo dañoo wax.